ne fu ko màggal la màggal li bamba woote ne buñ ko digle ci bernde looloo di màggal di sit safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rekk di màggal di sit safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rekk di màggal itaali xam na faranse xam na a xam na li moo di màggal waroon na kon tey ñuy gonte kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal waroon na kon tey ñuy gonte kay xëy di dajaloo kay waxtaane màggal murid yi jóg leen waa ji safar yéen ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal waroon na kuy ñëw tuuba fa muy aw ñam ya dëkkay aw ci barke màggal ñi yóbbu yam ya ci hôpital ya ñi yóbbu ñam ya ci hôpital ya ak pirison ya ci barke màggal sëriñ bi aw ñam la digle ku yi dem na yóbbu aw ñam ci màggal képp ku màggal bis bi di màggal màggal bu dëggal des na le màggal fonk ko moo war jàpp ko moo war ku ko deful war ki woote màggal Bamba danoo moom amul ku dul moom nañ toppi ndigalam te fonk màggal wa rahmatullahi wa barakaatuh bokki jullit bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu Fatah ñi nga xam ni moo nekkal sëriñ Abu Baraka mi xalifa alxaaji Mahamadou Fadal fii ci dëkk bi ndigal loolu nag bi ñu jógee ci sëriñ ngi jaar ci Cheikh Mahamadou Bachir moom alxaaji Mahamadou Fadal sëriñ Abdou Fatah ak mbooloo mi nga xam ne moom nga àndal ñu ngi lay fay ak nuyoo te di la ñaan nga jottali ko ak nuyoo ak ñaanam ci Cheikh Mouhamadul Bachir mu jàllale ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ñu fi nekk toolu Cheikhul Khadim yàlla fi yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko sëriñ bi nag nee na kàddu yu mu am yum leen mën a sante mënu koo wax ci aw làmbinam ndax xolom sedd na guy ci keroog ba nga ñëwee wax ko ne ko njëgg mi day war a jaar euh, day war a ñëw ndint mu wax ne nag njëgg moomu su ñëwee ndindi di fi dox ci tànki màggal day mel ne pot bu ñu delloo ci ndaale rek ndax màggal gi suñ ko defoon jëmmi nit dañuy wax ne ci dëkk bii di dindi fi la yaram <laughs> ba xëy ma sëkk jëmm ñu doon koo sancal tuumaam kon sëriñ bi nee delloo nañu mbaax bi can xor ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ñaan nag bis bi nga xam ne njëg bi mi ñëw na ko Tuubaa euh, ndindi mu ngi ñaan ak mu lu mu xat-xat lu mu gàtt-gàtt ñu may ci ndindi ak bisam ndax wax nañu ne wala moom lu mu xat-xat mhm. nuyul ma sama bàyyi dana ci xaj te lu mu fees fees ak nit it sëfër ba du wàcc bu mu koy wàcc waaye du doon sëfër ba nee woon nag moom si Abdou Fatah bu sëriñ afee naan junjee ci diggante Sëriñ Fallu ak Tuuba ak Màggal suñu fadlu ak màggal bu noppee ñu xamale leen ak tuuti rek xamale ko kat ci Ndindy ci boppam euh, suñu àdduna ñu ngi lay sëriñ bi nee na Ndindy benn la ci barab bi borom Tuubaa yi nga xam ne sëriñ Fadlu Mbakke ñu ngi ko gis 1912 waaye am ndigalul sanc ko nag 1913 eh, muy dëkk boo xam ne nag ku ci bëgg a dem eh, yoon li ñuy wax national 3 moo ca jëm boo jógee Tuubaa jëm Matam moom ngay njëkk a jot ci dëkk bu li tax mën a dëkk moom nag mooy ba mu nekkee dëkk bu ñu sañ ci ndigalul Sëriñ Tuubaa ngir jaamu fa yàlla ak liggéey yi loolee ndigal ba fii mu nekk dakkut doonte yiy dab ay dëkk ci jamono ñu loole ay moroomam am na ndax loola la cay firnde mooy euh, ku ñëw da fi fekk poste gendarmerie waaye da nga fekk it poste sant poste de santé boo xam ne si mbut bu sa jël moo ko taxawoon waaye it fàttewuñu la taxoon ñu santi ko ndax fukki quartier ak juróom-ñett yi mu am quartier boo ca dem da fa fekk seen jullikaay waaye am na juróomi jumaa ak joo xam ne ñu ngi koy tabax te ak li fi dëkk ci aw nit kaar kaar ay benn benn rek la euh, yàlla gën a dolli ndax xayma bi nga xam ne moom la ma chef de village bi jox suñu El Hadj Ndiaye suñu Fallou bi ñu mujjee wàññi nit a fi dëkk ci fukki quartier ak juróom-ñett yooyu mat na ñeent fukki junni nit ak ñaar ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar. quarante-deux mille huit cent quatre-vingt-douze ci ay nit ñi ngi fi xëy di fi yewoo yàlla nañ ko guddal ñoom ñëpp waaye bu ñu yi nga xam ne dafa dab jamono yi euh, te fekk ya fi nekkoon bu ñuy wàññee danañ fi fekk juróom benn fukki jàngukaay ak juróom benn waaye am na yit dara bu mag koo xam ne ñiy ñëw Tuubaa ci màggal bi ñëpp ñu si bari ràññee nañu ko mhm. ndax li ko tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem ku fay dem lu yóbbaale fa aslëf boo demee da ngay mën a am waaye ci wàllu dem dég dikk bi yàlla yombal na ko lool ndax bokk na ci dëkk yi gën a yomb dem dañ jege Tuubaa ndax am na ñaar ñaari ligne tataal yi fii yuy wax waa ngi dem ko dikk benn bi xàmmikaayam mooy ñaar benn bi xàmmikaayam mooy juróom-benn wax nañu ne li nga xam ne mooy xàmmikaayam ñaar am na ñaar fukki woto ak benn di nga xam ne juróom-benn lañ koy xàmmee am na fukki woto ak juróom-ñaar kon day mel ne dem bi ak dikk bi yàlla jàppalal na ko fi lool. am na ni fajukaay boobu ma tudd léegi si mu tabax ko ngi fii ci biir suñu fan bi yëpp ay jàmbaara fi nekk. kon ñu xam ne euh, ci tënk dëkk la bopp. ci ndigalul sëñ Tuubaa borom Tuubaa la ko sëñ Fallu sañce ngir jaamu fi yàlla ak liggéey te it pas-pas bu wér feeñ ci ndax sëñ fan lu na ñu ko sëñ Afi waxee ci waxam joo xam ne tasaaroo na lool yaatu na mu ne ñoom waa Tuubaa dañoo siyaare ji woon sëñ Tuubaa fa njëriñ ba mu demee njëriñ ba ci déwén si ndax ba mu koy wax naan ren la ci juróom fukki at ak nangam bu ko seetee at moom demee njëriñ la ba am fa ay weer rek mu ne def nañu yéen ñii ku ci mën a bokk ak moroomam barab na bokk moroomam barab ku ko ci mënit bu mënee wut barab boobu nguur ko nee na Cheikh Moustapha ci moo ko ne ah kon de am na tawfiit ndax amoon na gisoon na borom sëñ bu mag bi ne ana nu mu tudd fu mu fa ne mu ne ko fa tolloon ndiir ji sëñ Fallu nag ne di tax soppiwu tur bi li ko Cheikhul Xadim tudd moo tax soppiwu tur bi te la sëñ Mourou Saba sañtee xusnul maqaam ñu koy wax ci loolu sëñ Masamba Karim sañt Daarul Xadim sëñ Masamba Mbàkke sañt Daarul Karim kon ma fàttali ko sëriñ Abdou Fatah mi ngi sant di ñaan yàlla buñ gaaw a gën a mënte waaye xolam set bi wii ndax diñ ko ko waxee li ñuy jam ku jam teewut yëgal na ko ñi gën a jege ci njabootu sëriñ bi te dëkk te dëkk ci dëkk bi boo xoolee fii da ci gis ay benn benn yoo xam ne kaar kaar kenn wallewoo ko kon mi ngi leen di di leen gërëm di leen yóbbante ak nuyoo ci xaritam rakkam Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir mi sëriñ gi ci loxoom te di ko yóbbante ci suñu kilifa ñun ñëpp Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekkal borom Tuubaa ay cantam ak i ngërëmam di ko xamal ne ndindi moom ma nga fam nekkoon rek lu muy def loo ay taalibe ña nga fa di ko déglu waaye lu mu yor te di ko def ciy taalibe yëpp ña nga fa di ko déglu te yàkkamti ko lool kon sëriñ baa ngi di gërëm yàlla nañ ko fekk ay ati at amiin amiin Mbacke amiin yu yàgga yàgga yàgga yàgg te di ko yàgg ànd ak suñuy kilifa di tox seen ginnaaw ba ñu àggale liggéeyu sëriñ bi fa ñu ko bëgg a àggale bis bi daal mi ngi fàttali di ñaan daal at mu jot ñu may ci dindi moom doonte dañuy romb jàll képp ñu xam ne ñii fi jaar jàll màggalu Tuubaa ngay leen tax a waaye yaag nañ ci pëncum dindi wala ci mbedd dindi jàll képp loolu moom suñu koy ñaan di leen jox daje insha allah ñu fekk demee nag jàmm euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf mbokk yi kon lu tàll loxo yi ñaan barkalla jataay bi dama